ayca ñu dem daal di koy door ak l'informateur quotidien journal bi xëy daal di addu ci déguerpissement bi ñu doon amal foofee ca marché Colobane jëmale ko ci marchand ambulant yi journal bi ne moom Ousmane Sonko démb nag ba mu fa demee dafa fekk nag ay ndaw yoo xam ne kontaanuñu benn yoon journal bi teg ci ni sax moom Ousmane Sonko dañ ko fa doon yuuxoo waaye Ousmane Sonko lim leen xamal moom mooy yëgul li nga xam ne nag moom moo fa am ndax nag ministre de l'intérieur moom moo signé bile circulaire waaye it di wax ni circulaire boobee yëgu ci dara lii quotidien journal groupe origine sa ni mu ko waxee di xam le ni nag circulaire boobee ak li nga xam ne Ousmane Sonko li mu wax dafa mel ni nag ah, dafa woro waaye it daal di ñëwaat ci ministre de l'intérieur bi nga xam ne ah, moom moo génne bile circulaire ngir nag wax ni ay déguerpissement dinañ ko amal ah, foofee ca Colobane jëmale ko ci marchand ambulant yi journal bi nag di xam le ni Ousmane Sonko yu xoo nañu ko démb foofee ca Colobane gouvernement bi nag li mu wax moom mooy ñu amal déguerpissement tribune journal groupe des médias ñu Ousmane Sonko dafa mel ni nag euh, ku ñëw nekk sapeur pompier ci jamono ji nga xam ne euh, moom Ousmane Sonko journal bi mi ngi xamal ni nag ay ndaw yoo xam ne yu excité la fekk foofee euh, ca Colobane waaye it moom li nga xam ne def na ko wax ji nag daf koo jëmale ci Jean Baptiste Tine di ministre de l'intérieur ak ñi xam ne ñoom ñooy mairie direct news nañu Ousmane Sonko ak ministre de l'intérieur ndax ñoom ñaar ñii ci benn gouvernement la ñu leen di fekk ana li tax journal bi daal di amal bile laaj journal bi moo moom Ousmane Sonko li mu xamle euh, daal jëwriñ bi li mu def euh, moom yëgu ko circulaire bi yëgu ko looloo tax nag journal bi samp aw laaj ne ndax ministre yi nga xam ne ñoo nekk ci gouvernement bi bu ñuy jël ay ndogal moom Ousmane Sonko du ko yëg loolee nag ak laaj la boo xam ne direct news daan na koy xëy fësal euh, ci xët bu njëkk bi ndax nag mi ngi ñuy wax ni déguerpissement yooyee ministre de l'intérieur moom nag moo ko xamle ci ab circulaire boo xam ne juróom-ñaari fan ci weeru mai 2024 la woon kon nag Ousmane Sonko moom nan la lay taxawee di wax ni nag moom kenn yëgalu ko lépp lu jëm ci bile déguerpissement moo tax nag journal bi ne lépp lu jëm ci wàllu woowee lu jiitu nag ñu koy amal faaw nag ñu waxtaanee ko ci conseil des ministres laaj boo xam ne nag journal bi xëy na ko fësal bés bi le jour ne ñu leader bu Pastef kañ li nga xam ne nag moom la doon xool mooy ndax nag ni ñu ko bëggee woon ba tey noonu la ñu ko bëggee waaye nag démb gis na loo xam ne nag lu am solo la foofee ca Colobane waaye it ne lépp lu jëm ci wàllu déguerpissement nanu ko amal waaye nag nañu dawal yërmande tuuti laas yéene kaay daal di dugg si ci làng gi àddu ci déclaration politique générale foofee ca pencum ndawi réew ma yëglekaay bi ne nag assemblée dafa renvoyé ñi nga xam ne ñoo far ci nguur gi Abdou Mbow daal di yëkkati ay kàddu ne Ousmane Sonko du reconnaître li nga xam ne nag mooy assemblée nationale kon ñoom it duñu reconnaître ministre bi nga xam ne moo fo waroon ñëw la dépêche yéene kaay daal di si tàbbi ne nag ci jamono ji gatsa moom la ñuy nemmeeku diggante nag ñi nga xam ne ñoo toogal askan wi foofee ca pencum ndawi réew ma seen digganteeg Ousmane Sonko Vox Populi moom dafa xëy daal di tàbbi ci wàllu crise ne loole nag la ñuy nemmeeku foofee ca assemblée nationale di pencum ndawi réew mi waaye it bureau bi nga xam ne nag ne lépp lu jëm ci wàllu débat d'orientation budgétaire duñu ko amal ayub dafee jàpp ni loole communiqué bi nekkul communiqué boo xam ne jaar na ci yoon Amadou Ba daal di addu ci déclaration politique générale ne loolee du obligation constitutionnelle képp ndax nag nanu jàpp ni loolee devoir la article cinquante cinq euh, bu constitution réew mi moom nag euh, moom moo ko imposé ne faaw nag njiitu jëwriñ daal di présenter déclaration politique générale ci kanamu ñi nga xam ne ñoo toogal askan wi foofee ca pencum ndawi réew mi sud quotidien ne majorité moo taxaw nag ne euh, lépp lu jëm ci wàllu débat d'orientation du nu ko fa amal foofee ca assemblée nationale Walf Quotidien moom it noonu la gisee ne ci jamono jii ci guddi gu bërsatagul lanu nekk diggante ñi nga xam ne nag ñooy député yi Ousmane Sonko enquête yéene kaay moom it uh, noonu la gisee uh, jàpp ni nag ci jamono ji ñàkk a déggoo moo am nag uh, ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk foofee ci assemblée nationale seen digganteeg Ousmane Sonko dañu koy jeexal ak l'observateur le journal du groupe Futurs Médias journal bi dafa xëy daal di amal gëstu bu yaa ci ñi nga xam ne ñoom la ñuy woowee détective privé fii ci réewu Sénégal journal immeuble Ilimane nag di ci amal ay leeral waaye nag ne lu ëpp juróom-ñetti téeméer ci ay clients yoo xam ne nag wane nañu seen kontante ci métier moomu loole diggante deux mille vingt et jàpp deux mille vingt quatre